campagne électorale bi di tàmbale dégg nañu président de la république mu ne nañu moytu violence bi waaye moom moom la ñu dénk kaaraange réew mi mu nekk chef suprême des armées jox ko matawaay yépp pour mu aaral ñu suñu kaaraange gannaaw ba mu artoo dafa waroon moom ak ministère de la justice ba jafe-jafe yi commencé ñu taal siège u benn coalition dañu waroon dem jëli ña ko def waaye defuñu ko ñu dégg kilifa Pastef bu mag muy Abbas Fall mu taxaw ne man dana gànnaayu jàmmaarloog képp ku ma defal ku ma jàkkaar lool moo ko wax boobu justice daf ko waroon jëli jëliwu ko fépp fépp fu caravane opposition bi jaar walla gën nga bari ñu daal di leen di tàppaas di leen yuuxoo di bëgg a bañ ñuy def seen liggéey comme ni mu waree comme man Wuro Sogi am na ñu fa nekkoon waa Pastef song ma di def lu ñaaw waaye topp leen faalewu ma leen parce que damay moytu fitna waaye waaye du ñëpp ñoo am sag boobu am na ñoo xam ne boo leen ko jaayee ñu defanteeg yo koog yow loolu tax keroog démb am na ñu song am na ñu fayontoog waa Pastef ba am deret bu ci tuuru loolu nag la waroon premier ministre mu constaté moom ak président la république bu ñu dénk kaaraange que foofu juum nañu fa xastalu nañu parce que ñoom la ñu dénk kaaraange réew mi waaye premier ministre dafa tëkkuwaat président de la répiblique bi yoon ak ministre de l'intérieur mu ànd ci ak responsable Pastef yoo xam ne président de la république ñoo leen ñoo leen nome ñu naan Gatsa Gatsa bu Gatsa Gatsa bi ñëwaatee yéen askanu Sénégal seeni doom doomu baa doole yi ñoo ciy dee du moom mi du ay doomam parce que gis ngeen Gatsa Gatsa bu njëkk bi moom la ko ca daloon sax mu ne dañ ko sotti poson ndeke ay tappale la dara dalu ko woon te fan la mujjee Gatsa Gatsa boobu mu waxtaan ak Macky sàll ñoom ñu doon reyante ñu waxtaan ñoom ñaar ñu juboo ña deewoon dee nañu ba ilaa yow mi diin ña ci yàqaloon ay boutique yàqule nañu station yi ñu ci taaloon taal nañ ko donc askanu Sénégal moo ci ñàkk donc bi yoon bu ngeen di tànn bu ngeen di tànn mbokki Sénégal tànn leen ñi nga xam ne lu leen njëkk a soxal pas gat sa gat sa mais naka lañuy fexe ba koomu réew mi ju suqaliku naka la ñuy fexe ba nit ñi lekk naka lañuy fexe ba ñuy dem ñi gaal gi mbëkk mi mu arrêté waxtaan leen ak loolu mbokk mi wax leen kook seen mbokk yi wax leen kook seen dëkkandoo yi pour que senegaal ñi ñu jiite bañ a tal gatsa gatsa waaye tal xeex pour yéen pour ngeen ku feebar faju seen doom yi mën a jàng en paix bu ñu jàngee am diplôme dawalkatu jakarta yi nekk ci jàmm ñu bañ leen di leen kale ci tali yi di leen teg lu jaaduwut dawalkatu taxi clando yi tamit gis ci seen bopp jaaykat yi gis ci seen bopp loolu la ñu wax loolu mooy rôle ak responsabilité état pas di def gat sa gat sa ak ay citoyen ñu ngi leen di gërëm di leen sant